mbokkite di asalaamaaleykum wa rahmatullah dellusiwaat nañ ci waxtaan wi nga xam ne mooy waxtaan yi xew-xew weeru koor tey nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor ci atam six cent cinquante huit ñaari fan ci weeru septembre ci atam mille deux cent soixante ci la jullit ñi amoon ndam ci kaw ñi nga xam ne ñoo di waa Tatar ci njiital Sayfuddin Qutrus loolu nag ci bataay bi nga xam ne mooy bataay Aynu Jaalut di xeex bu metti boo xam ne amoon na diggante jullit ñi ak ñi nga xam ne di waa Tatar mbokk yi ci fukki fan ak juróom ci weeru koor ci atum mille cent quatre-vingt tolloog fukki fan ak ñaar ci weeri mars mille neuf ci la daje bu njëkk amoon diggante cheikhul azhar cheikh Mahmoud Chaltout ak cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhuma kon eh, cheikh Mahmoud Chaltout mooy cheikhul azhar bi cheikh Ibrahima Niass njëkk a dajee ak moom njëkk am ak moom ay relation dinañ ci gën a yaatal incha allah mbokk yi ci ñaar fukki fan juróom ci atam neuf cent vingt sept tolloog ñaar fukki fan ci weeru août ci atam mille cinq cent vingt et ci la armée bu Ousmani ci njiital Souleymane al Qanouni ubbi dëkk bi nga xam ne moo di dëkk Belgrade di benn ci réewu Europe yi. tàmbali nag di fa lawal di fa tasaare li nga xam ne moom di lislaam mbokk yi ci fukki fan ak juróom ci atam euh, cinq mille cent ci atam mille deux cent cinquante et un ngeen baal ci atam mille deux cent cinquante et un tolloog fukki fan ak ñett ci weeru janvier mille ci la français duggoon dëkk bi nga xam moo di tëgg Termisane ci Algérie gannaaw bi nga xamee ne ki nga xam ne moo fa nekkoon buur bi di Abdul Qadir al Jazairi euh, jógeekoon na ci digaloo diggante euh, Tilmisaan yi ak Wagda ci fi nga xam ne moo di Maroc mbokk ba léegi ci li nga xam ne moo di fukki fan ak juróom ci weeru koor ci atam mille trois cent cinquante deux tolloog ñetti fan ci weeru janvier ci mille neuf cent trente quatre ci cheikh Ibrahim Mah cheikh Mahmoud Diop di waajuri cheikh Ibrahim Mahmoud Diop jotoon lettre boo xam ne moo laana cheikh Ibrahim moo ko bindoon di ko gërëm di ko sant ci taxawaayam ci li nga xam ne moo di xadra bi ak euh, euh, yëngatu yi nga xam ne mi ngi koy yëngatu ci lépp loo xam ne mooy aju ci mbiri xadra yi ba léegi ci fukki ñaar fukki fan juróom ci ci ramadan ci atam mille trois cent soixante-huit tolloog ñaar fukki fan ci weeru juin mille neuf cent quarante ci lañ euh, suñu woon pour taxawal xeex bi nga xam ni mooy dox diggante Syrie ak Israël mbokk yi fukki fan ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor ci atam mille quatre cent vingt six tolloog vingt sept euh, dixième mois deux mille cinq vingt sept octobre de mille cinq ci la xeex bu métti amoon fi nga xam ne moo di Paris ngir jullit ñi doon def manifestation gannaaw buñ faree ñaar ci ñi nga xam ne ñoo di doomu jullit yi nekk ci Paris mbokkite yi ñu ñëw ci ñi nga xam ne ñoo gane àddina ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor ñaar fukki fan juróom ci weeru koor ci atam cinq cent quarante ci la imam Fakhru Razi gane woon àddina di kenn ci firikat alquran yi gën a mag ci monde islamique loolu mu ngi tolloon nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier ci atam mille cent cinquante ñaar fukki fan juróom ci weeru koor ci atam mille trois cent trente sept euh, ñaar fukki fan ñett ci weeru juin mille neuf cent dix neuf ci la Mouhamed Boudiaf gane woon àddina mi nga xam ne mooy juróomeeli président ci réewum Algérie ñaar fukki juróom ci weeru koor ci atam mille trois cent quarante trois tolloog euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril mille vingt cinq ci la Cheikh Abdul Wadud Chalabi euh, gane woon àddina di kenn ci égyptiens yi euh, borom xam-xam yi yi gën a foofu moom nag man mas naa nekk secrétaire bu Cheikh Mahmoud Chaltour bi ñu war a waxtaanee diggante ak Mawlana Cheikhul Islam Alhaaj Ibrahim Niass kon ñu ñëw ci diggante Mawlana Cheikh Ibrahim ak Azhar Sharif diggante boobu mu ngi tàmbali ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor ci atam mille trois cent quatre-vingt tolloog euh, le 12 mars 1961 bi nga xam ne ne moo Mawlana Cheikh Ibrahima dajee na ak Cheikhul Azhar Cheikh Mahmoud Chaltout muy daje bu njëkk di xew diggante Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ak kilifa ak Azhar euh, Mawlana Cheikh Ibrahima Niass nag waxtaan ak moom euh, ci lépp loo xam ne moo aju ci mbiri benn la jullit ñi ak lépp loo xam ne moo aju ci mbiri dimbale jullit ñi nga xam ne dañoo néew doole Mawlana Cheikh Ibrahima présenté ko doom cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahima Niass Baba Lamine nga xam ne mi ngi woon ci tukki bi ne ko kii suma doom la mokkal na alquraanu karim lépp euh, cheikh Mahmoud Chaltout euh, tariloo ko saar bi nga xam ne moo di saari baqara cheikh euh, Baba Lamine tari ko tari bu rafet cheikh Mahmoud Chaltout kontaan ci lool tagg ko wane it li nga xam ne moo di mbégteem ci mokkal li nga xam ne cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahima Niass mokkal na ko alquraanu karim Euh, relation boobu nag amoon diggante Mawlana cheikhul islam alxaaj ak cheikh Mahmoud Chaltout moo continué ba ci cheikhul Azhar yi ci topp ku demee ni ki Mouhamed Faham cheikhul Azhar ak euh, cheikh Hassan Mamoun biñ agsee nag ba ci ki nga xam ne moo di cheikh Abdoul Halim Mahmoud kooku nag euh, relation bi gën a rattax moom ñëw na ba Madina Baye nuyu si Mawlana cheikhul islam alxaaj Ibrahim Niass waaye tamit ci mille neuf soixante quatorze wala soixante treize Mawlana Cheikh Ibrahim dajee naag moom waxtaan ak euh, moom ñaan ko ay oustaz ci teewaay yi nga xam ne moo di Jim Momar Gueye mi nekkoon ambassadeur yi Sénégal ci fi nga xam ne moo di Égypte bam ko waxtaan ak moom ñu d'accord ci li nga xam ne mooy indi ay oustaz yuy jàngale fii ci Sénégal ñu ñëw fii ci madina Baye kon oustaz yooyu juróom lañu ñu woon juróomi oustaz yooyu nga xam ne ñoo fi njëkk a ñëw fii ci Sénégal di jàngale arab jóge ko Égypte fii lañ ñëwoon Medina Baye ci janvier 1975 juróomi oustaz yooyu ñooy Cheikh Abdoul Halim Abdoul Hamid Abdoul Fattah Cheikh Nasr Moustapha Cheikh Chadiq Chalabi ak Cheikh Wahba Khafaji ak Cheikh Ali Abdoul Aziz juróomi ustaas njëkk a ñëw fii ci Sénégal di jàngale arab gannaaw buñ seen mission jeexee bañ ñibbi euh, yeneen ustaas ñëw yeneen ustaas yi ci ñëwaat ci la ustaas euh, mathématique bokk di ustaas Nabil ak ustaas euh, physique chimie di ki nga xam ne moo di musalxi loolu nag Cheikh Ibrahima Niass moo xàll yoon bi ba fi mu nekk ni ñu toll kër yëpp ñu ngi ñaan ay ustaas yu jógee ko ba Égypte école arabe yi nekk ci biir Sénégal yëpp ba nga koy ñaan yu ci am nañ ay ustaas yu jógee ko ba Égypte ñi fi nekk actuellement di doomu Égypte yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal di jàngale jamono yi ñu toll lu war a toll ci soixante treize ay ustaas lañu maanaam juróom-ñaar fukki ustaas ak ñett bokk na ci ñaar fukki yoo xam ne ñu ngi fii ci Kaolack diggante Mahad El Hadj Abdoulaye Niass ak euh, Mahad Imam Assane Cissé institut islamique africain américain ak Mahad imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé ñaar fukki ustaas lañ leen jox ñu séddoo ko bu ko defee di jàngale li nga xam ne moo di mboolem matière diine yi ak matière yi arab yi am na ñu nekk Touba am na ñu nekk Dakar am na ñu nekk Mbour am na ñu nekk Louga loolu yëpp di wane relation boo xam ne am na diggante El Azhar Sénégal. te Cheikh Ibrahima Niass bokk na ci ñi ko gën a rattaxal bokk na ci ñi nga xam ne ñoo euh, tàmbali li nga xam ne moo di relation boobu relation boobu yemut rek di indi ay oustaz ñu jàngale fii ci Sénégal waaye Cheikh Ibrahima génne woon na ay doomam ñu dem Azhar di jàngi am fa ay diplôme yu kawe kawe kawe ki ci njëkk am diplôme licence mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahim Niass Baba Lamine euh, mu ngi génnee euh, loi islamique cheikh Mouhamadul Mahi génne Mouhamadul Mahi al Khalifa xaadimul euh, umma génne histoire ak civilisation cheikh Mouhamadul Aqib al imam génne taarix ak euh, di histoire ak civilisation cheikh Mouhamadul Makki moom it euh, génne histoire ak civilisation imam Mouhamed Cissé génne commerce imam cheikh Tidiane Aliou Cissé génne théologie islamique ci département al hadith cheikh Nour yàlla na ko yàlla yërëm génne tarbiya te mooy lépp laaj ci mbiri jàngale cheikh Mahmoud Niass di Pape Mahmoud moom génne théologie islamique moom it ci wàllu philosophie cheikh Mouhamadul Mahi Cissé génne langue arabe shoba am maanaam littérature arabe euh, ki nga xam ne it euh, mooy Serigne Aliou mu Alhaji Abdoulaye Niass li nga xam lépp lu ñuy jàngale arab dirasat islamia wal arabia waaye tamit eh, ki nga xam ne mooy oustaz Babacar Niang mu yaaro Pété Baye génne département eh, relation publique eh, Baye mu Alaaji Abdoulaye Niass génne journalisme moom it ki nga xam ne moo di Cheikh Bachirou ibnu Cheikh Mouhamadou Zeynabou Niass moom it génne journalisme moo ko toppee du jeex li génne ci heure ci ñi nga xam ne ñoo di njaboot Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahima Niass kenn xamul lu mu toll te lépp ko ci relation boobu amoon diggante Cheikh El Azhar Cherif Cheikh Mohamed Chaltout ak Cheikh Ibrahim Niass nga xam ne wax nañ ne moom Chaltout moom moo tuddee Mawlana Cheikh Ibrahim Niass eh, Cheikhul Islam kon mbokk yi ñu ànd ak yéen ci ñaan gi nga xam ne moom la ñu tëjee suñuy waxtaan te mooy allahuma la tajalna mimman taxa wa aathara alxayaatu dunia allahuma sabbit qulubana ala diinika waxtim lana xayaatana بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم مهما عظمت ذنوبنا فإن عفوك أعظم ومهما تمادت غفلتنا فأنت الرحيم الأكرم mbokk yéen a ngi àndoon ak seen mbokk Baye Thiam bu Zeyna wassalaamu aleykum wa rahmatullah